berkali jërë jëf mbokk yi noonu rek lañuy def nag sant buuri buuri ak kattanam julli ci yeneen tibeek yërmandeem ñu ngi sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaaru tey ak suba. Eh, ñu ngi leen di nuyu baneen yoon ci Star TV Gambia West Africa di Smiling Coast ñu ngi nuyu fu waay munti di nekk rek waxtu bi nga ñuy bàyyi xel ci suñu programme lang ji rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu eh, topp ci internet bi ci Star TV Gambia waaye ñu ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ay Gambians lañ nekk ci diaspora bi Euh, fu waay munti di nekk rek nekk amateuru làmb ñu ngi lay nuyu euh, di la ñaanal jàmm di la ñaanal euh, tawféex di leen wax ne dal leen ak jàmmu tey seen jotaayu langa ji altine yamook juróom ñetti fan Euh, ci euh, weeru octobre juróom juróom-ñeenti fan euh, ci weeru octobre ñu ngi jéggalu ci juumte boobu waaye dañuy ñëw dugg ci li nga xamante ni dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li sabab suñu jotaay muy waxtaane aada ak cosaan bi ñu donnee ci suñuy maam muy suñu sport national di nuyu ñu ko jiite nekk ci bopp bi muy waa Gambia Wrestling Association Serigne fay Thiam ak exécutif bu mu àndal ci liggéey bi Euh, di nuyu tamit euh, manager yi jiital see suñu nuyoo ci seen président bi nga xamante ni euh, moom mooy ji Mbay di ko nuyu di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy promoteurs yi nga xam ne ñoom ñoo jël seen alal di ko invest ci làmb ji amateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal ndax fu làmb yegg yéen la yéen yéenay sponsor ndombo wan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam waaye xam ngeen ne eh, du ñu ci wéet benn yoon ndax am nañu ay gan ci kër gi eh, waaye eh, saa su nekk rek dañ ci faral di fegoo ak Mouhamed Mouhamed Niang Mouhamed maa ngi lay maa ngi lay nuyu. waaw Fall maa ngi lay fay. danaa bu sante yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant kullu waajur di la nuyu bu baax di nuyu suma sëriñ Assane di nuyu Star TV yëpp. di nuyu suñu jigéen yi Yaamu Ndaw ak Jeena euh, ba maa ngi leen nuyu bu baax du leen ziar dañu sonn si programme bi trop. am euh, euh, xam ngeen ko dootuñu leen ko introduce tey dañu koy am fa seene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu loo xam ne jëm na ci lamb Assane ñu ngi lay nuyu. waaw lamb fay naa la baax a baax nuyu Mouhamed Niang ñuy tamit ñu fekk si biir kër gi. di yu seen bas ah di nuyu yàmm ndaw ak beneen sista caméra caméra bu mel bi waaw euh, di am contact ak rek ñoo si euh, Star TV ah. Euh, ñu nag géej gi ñu ñu wax si midi gën a génn si mbooloo wax ndax fa ñuy passé di am suñu benn rakk bu bokkal benn baay bu génn àdduna foofu si si si diwaanu Sénégal Ndakaaru Ndiaye moo tax lu bëri activité làmb yu bari den si euh, den si toogoon naka sama rek su amee naxar waaye yow moom mënu la bañal bañal dara ndax dem bëggoon xaar ba si karam mu soog a soog a dugg si yenn yi ndax tam dañu yaa naxar moom euh, euh, dabu naxar la si am sax suñu benn si sa tamit noo yorandoo benn kër ah, moom tamit yaa def moom yëpp si benn di la ñaar ko la waaye yow moom xamul lu la def waaye ne ni ki mu ne moom lu la naka lu mu waay def lu mu la defaat moo tax la mu faal ah. Euh, moo tax soo invité rek foo ñëw parce que indi waxtaan si lu boo xam ne dina jëmale lambi euh, lambi Gambia si kanam lam fool jaale di ko jaale famille Kébé bi yëpp ndeysaan nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, dëj la boo xamante ni dëj bu tiis la te comme ni mu ko waxee ñaari nit yoo xamante ni dañoo xamante wala ci benn famille ñaari nit war cee génn àdduna ci benn bis loolu dafa dafa tiis Euh, waaye nag euh, euh, kullu nafsin saa yi xatin ti doom ndey bakkan bu ñam dund rek faaw da ngay ñam de ñu ñaanal aji jiitu yi yàlla yërëm leen te jéggal leen bu baax a baax fa ñu nekk dàqal leen fuuf fi ñu jóge lépp lu ñu bàyyi ci ginnaaw rek yàlla na ci suñu borom teg loxo euh, yow nit ku baax nga suñu wëllëre nga sa sa naqar suñu naqar la sa mbégte suñu mbégte la euh, kon nag euh, bu li amee mu demee ni mu demee nii dëgg la fan yëpp kenn déggu la kenn gisu la waaye tamit nag li ko sababam mooy Euh, nit ki moom sa nit lay fekk fi nga nekk mu génne la ci ne la fii fii la ñuy nekk <laughs> mënuñoo dëkk yowmal xiyaam ba faaw doon tey <laughs> yàlla na leen yàlla jéggal te yërëm leen. ay ca mu noonu làmbay suñu cosaan mu ñu doon nekkoon ci suñuy imam muy suñu sport national. Euh, li nga xamante ni nag moom moo ci gën a fës euh, dinañ leen ci ñëwal muy waxoon nañ leen ko ne leen ne AGM bi nga xam ne ñu ngi ko doon waajal mu xewoon ci on seven octobre muy samedi bi nga xam ne weesu nañu ko la ca xew ak na mu xewee ak la ko sabab ah lépp di ngeen leen ko indil di ngeen ko seetaan live bu ngeen toppee suñu jotaay waaye dañ leen di fàttali tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo nekk ay xew-xew yoo xam ne dañ ko doon waajal bokk na ci tey li tax Assane ñu am ko ci biir kër gi euh, ndax kenn umpalewul ne Eh, ñu ngi doon waaj samdi bii di ñëw nii mu war a yemoo ak on the 14 octobre ñu waroon cee am eh, event bu mag muy event làmb di jàkkaarloo face to face boo xam ne international la Gambia ñu ngi koy waajal ah, waa Italie ñu ngi ko doon waajal ah, eh, Banjul ba koy na ñëpp doon ko waxtaane mu nekkoon event boo xam ne Eh, dañ doon expect ne eh, moo war a ubbi làmbi Gambia am ci benn athlète bi nga xamante ni dafa war a jóge bitim réew dog ticketam ngir war a ñëw ci samd bi pour def li nga xamante ni moom mooy eh, li mu digaale woon ak promoteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy waa Double RG ndax yàgg ngeen a dégg suñuy programme ñu leen di wax ne Double RG ñooy ubbi season bi on the 14 octobre mooy event bu njëkk bi eh, ginnaaw bi nga xamee ne nag eh, jamono bi ñuy waxee ak yéen nii am na ay jafe-jafe yoo xam ne làmb am na ko jafe-jafe la ñu koy tuddee ndax tey Euh, event boobu li ko teree am jafe-jafe la euh, te jafe-jafe bi tamit jugewul ci promoteur yi nga xamante ni ñoo jël seen alal invest ko euh, fokk ñu understand nu demee noonu léegi nag dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Assane ñëw ak moom ci Double RG ji ci li nga xam ne ñu ngi ko doon mbébét parce que tiis bu betteel la lu betteel la parce que tey ni ki tey jii nii Moundé bi waroon nañu euh, ngeen nekk ci activité si nekk ci mbëri contrat gi ñu rempli ko ci Rasuline association bi ak yu demee noonu ah lan si ni mbëri dem dagg ji ko ak yu demee noonu ginnaaw bi loolu noonu yëpp ñëwee tey ñeen Dabul Aar ji ñeen xam ne loolu du mun a sotti ci samedi bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal mu nekk on the 14 Euh, euh, euh, yàlla rek moo xam na ah, lu nekk mun na xew waaye ndax fi mu toll ni tembe war ngeen dañuy continuer di wax askan bi ne leen on the fourteen Double R ñu ngi taxaw ba léegi pour def jàkkaarloo face to face bi wala dañuy wax gaa yi ne leen ñi ñi ñi xaarandiku waaw waaw lamb kon noo ko noo ko waxee rek ñun def nañ ñu war a def na ñu war a deni yàlla parce que suñu mbir moom ne ko nekkutoon lu lu nëbb depuis juin juillet ba léegi taxaw na suñ grand combat di annonce ba jàpp suñ déet suñ suñu déet spécifique si jàpp déeti euh, làmba di ko di ko annonce te su ko see nu am fit pour annonce combat yi mooy ne am na lu waxawante euh, ma ma ma manager amoon lu mu ba jibu na tey mbër yi yëpp yoo xam ne yëpp ba moo xam ne ñun tey naa combat am muy fukki combat fukki mbër ak juróom juróom yu ñu waxal yëpp benn mbër rek la wax joo joxoon ko prix muy muy muy Mama Lamine te mu fee nekkoon moo tax kon mbër yëpp képp koo xam ne tey war nga war nga woo jàkkoo si event bi jox jox nañu suñ prix contrat te prix contrat bi doo ko jox doo ko ba nga ci prix contrat ba nga joxe foog jiw waxtaan am waxtaan foog jiboo am te loolu yëpp am am na suñu diggante ñu nag ñu ak ak ak man ma ne jaay ñu ko seexal na euh, euh, jaar def mu jaar na combat soo ko dox yoon bi protocole bi bay nga kool manager bi euh, jibo et puis am na yoo xam ne sax ñoom lañ jot pli contact direct waaw balaa nga ñu teg loxo xaalis sa loxo dina njëkk a kool sa manager femme ñelaw du mu fii wala mu ngi ni mu jox ko xaalis manager bi mu mën a waaw ñàkk ngeen ko jox na sa nini naka sàngam nangam leen ko leen ko jox hmm. suñuy seen ñu jokkoo nangam am na yoo xam ne dañuy jël xaalis suñu amee problème dañuy ñëw si ñëw ne la ah am naa problème dama baal ma damaa dem maa ngi war a tukki ma dem si jox la waaye nag yëpp si xam si naka si mën a jabe mu xam ko mhm. te loolu yu mel ni ñun jaar jaar nañ si a na nu mu gën a euh, yàggee nu mu gën a guddee mu gën a arrangé borom da ngay yëbaane pour ñëpp xam ne ne yow li yaa ngi ko mën organise pour pour nit ñëw te seen combat mu nga seen combat sax ëllëg mu nekk làmba ji loolu moo tax ñu joxe prix contrat gi pour mën a am fit mën a am got pour waaw waaw waaw jaay jaale IBM exemple bi nga xam ne lii mu ngay ñëw waaw ndax bis mu jaar soo bàyyi dafa xel dafa dafa dafa jege ndax ñëpp xam ne ne bi Euh, thirtieth of euh, euh, um, septembre bi la waroon nekk bi ko safu gàmmu bi ñu pousse ko on the seven ñu suñu jàkkaarloo on the seven la woon bu ko pousse on the seven ñu pour ñu may AGM bi tam su AGM bi weesoo nu mën a def suñu yenn process yi pour nu naka su boobaa yow sax sax event jàng ko waaye nga mën a pousse écrits yeeg mbër yi ñu doog seen lañ seen i ci mën a ñëw dafa dafa nu dafa nu face to face na loolu la min si lambi Gambia waaye gis leen docteur boo xam ne ñëw na ñëw na ñëw am am si mu eji boo xam ne amut ñu teem fa woon waaye fa lépp loo xam ne tamit mu fa doon daw xam ne fa mu eji em te su eji am amut lam faal saisine mënut a mënut a ubbi ndax foofu la day defee everything ubbi ubbi fa saisine mbir mun a dog seen lensin lam faal te tey loi bi dafa wax ne mbir soo dog lensin doo jàkkaarloo te ñun tamit den xam loolu xam nañ ko baax a baax moo tax mbir bu mu xewee lam faal question bi ma tontu ko rek bu mu xewee euh, ñu gis ne eji em bi amut. tey ñu gis AGM bi ak euh, ak suñu spécification one one week la mën nañ ne fi mën a defar waaw dara mu dafa nekk dañu xooloon everything su baaxee ñu pare woon nañ récolte nañ ak ak récolte récolte nañ ko ba euh, ba moom si week bi monde bi tey la waroon daw ñu dina séddoo ko ne ay 3 wala 5 législation yoo xam ne Absa bi waroon na ko daw rek ne ko mu ngi daw si whatsapp groupe yi ñu bëri am am am ko euh, am yeneen promotion doo xam ne tamit am ay social media yu nekk fi Gambie yu mag yu nekk fi ab yi dem bëggoon a ak ñoom ñoom already jox nañu suñu xaalis ba gaay tee ko waaye dale wala nu xooloon te moo début tey dem bëggoon door promotion bi na puis euh, suñu promotion bi dem bëggoon gën a gën a gën a si social media bi léegi seen Gambie yëpp noo ko bokk te soo ne tey programme lamba mu ne eighty five percent ñu ko déglu yëpp waa aw lamb ñoo ko dee déglu mais fifty percent bi ñooy cun rek det du ñaako ko si euh, xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp fa ne dox euh, euh, moo gën nekk suñu focus te am yenn social media yu mag bi nekk bi Gambia oré suñu xaalis demoon demoon na loolu yëpp amul lam faal because of AGM bi mu jëlu am ndax ñu xool ne Euh, euh, adopte adopte ko di adopte ko ñu loolu leen miin sax loolu loolu loolu moo de mën a ah, de adoptum report waaye AGM bi amul ah, bi ko sof ah, bi ko sof si loo xamee jalgati na loolu mooy loolu mooy mooy yoon condition yow rawatina yow mi di ko sàmm yow yow soo ko soo ko sàmmul respecté loo ko gu ma ku nekk sa ginnaaw di ko respecté noo ko joxe wax fa ne affaire yi amul euh, valeur su dee yow nag yow mi yow mi di ko sàmm nag euh, euh, naka da nga ko respect naka li ko naka di ko respect ko xas sa tànk tubéy di ko naka di ko doxal kon nu mu war a demee lam faal kon fa lu bëri du mën am moo tax affaire yi vice vice vas vasa lam faal loolu moo si nekk du si mën a bileem kenn ñu daal lu ñu wax moo ne su dee su dee eh, mbiri eji eji embi mën a mën a ñoom lay gis ñoom ñu euh, génn ñëw riposte yi jot jotuñ ko tubi te bi ne two weeks before di AGM riposte bi war na génn rawatina report bi ñoom li ngay wax mooy ne three days si la génn ko ñoom am nañ point boo xam ne ñoom am naka euh, naka ñoom am nañ ko si bisi AGM bi am nañ seen point ndax point boobu ko ndax boobu tamit yaa euh, naka kon bi ma ne ko bi first time mu xapoon su ne ko bi mu ne first time loolu mu xappul lamfal ñun tamit nañu jaaxa benn goor waaw waaw report si ñu jot ko mu génn on time waaw kay waaw kay waaw yaa nga si làmba man euh, yaaga na si làmba fanaan teewee leen moo doon ten AGM ah, euh, man musuma euh, fekkee AGM depuis jamono ba tàjjaajo ba ba lii ah mosuma gis ñu mos a kaas ne riposte yi dañ si dañ si dañ si yéex a jot AGM bi du am waaw. waaw waaw man man maa ngi teew ay AGM fii laa ko jotee man maa ngi mhm. fàttaliku Lasia ak Asia Asia bii rek. Euh, riposte yi Gambian Talents Assembly dañ ko génne yu bëri ba léegi mosuma sox soo ñëwee naa la ko wan ñu kool club manager yu bëri ne la ñu ne ko suma sox moo gën a accessible Serekunda la ñëpp fële gaa di rombe ñu bëri leen wax ne seen riposte yi nañ ma ko jox. ñoom dina ko jësi si man am na yoo yu bëri si biir si éj bi laa koy yóbbaale jox ko seen borom am na yoo xam ne ba léegi mosuma sopp c'est c'est ay ay manager leen kon su suñu demee tey ba tey ñu gis euh, manager tey euh, di stop AGM bi ko sof euh, report man daf maa daf maa jaaxal Lamba Fall waaw man daf maa jaaxal benn boor si lu ma fexe maa ngi fàttaliku naka jamono Mata Jaaju tamit nga gisaa si Mata Seye mosu doon wax yu bëri Mata Jaaju report mosu ko joxee on time yëpp si biir bu làmb lu ñu min ñoo si biir AGM bi soo bindee sollicitation soo signé ñu joxe report yoo nga dugga moom ñu nga ri ko yoo nga inter yoo nga inter ko loolu waaw loolu mu nekk loo ma loolu jaaxal lu tax at bi report yi mu yéex a du ma si ma wax ne yoon la su ko bi naa loolu moom jàkkatul waa la la la njëkkee loo xam ne yow mooy sat yow def ko waaw kon kon si loolu moo la ma si jaaxal waaye nag si benn boor Euh, lu ma gis ne Mané jay kaas kaas nañ ko si loolu batul loolu amul am na sa aaxa su la ko joxu rek am am nga raay nga kaasa ko ñu la neexee xeebal xeebal xeebalu moom seen problème nit ki doo ko xeebal euh, bi si xewam ak problème am nga xamuloo fu mu toll si moom nekk la moom man xeebal xeebal xeebalu ma ne ko waaye daal euh, su dee si làmb la yàlla def na ne euh, euh, euh, laaba dabu aji rawatina bii xaalis kenn dugg si waaw ñu ñu seexal ñu waaw dabu aji suñu xaalis rek mosu xaalis rek mosu dugg xaalis kenn dugg si donc na am lu ñu loo xam ne pour defar lamba si la mën a jagal mën a jagal lamba yëpp mu mu tegul ak si si si si si dëgg si dëggu mu nekk luy continuer ñu si suñu njàggee sax loolu am am am problème. ndax làmb ji France du jëmee kanam ëllëg euh, mun naa si njëriñu lu ëppa lu ëppa lii Lamp Fall te ñu làmb jëm kanam rek rek euh, mooy di soxal ñëpp Assane mm-hmm. euh, communication bi mm-hmm. ci Dabul Aar ji mm-hmm. ak jamono biñ toll nii ci ban ci ban ñi ngeen ko seqal ci ban anam ngeen di communiquer ak ñoom parce que tamit nag Euh, foog naa ne Maama waroon na mun a jamono bii ñu ngi doon wax ne dog na ticketam pour war a jugee euh, euh, Italie pour pour war a ñëw Gambia pour war a witness face to face bi man sax sama xalaat est-ce que newul sax Maama Lamine ñëw na ba pare yooyu yëpp mu woon ci sa sa sama lii wante jamono bii nii ban communication ngeen am ak moom parce que soo gisee ñun noot ko moom moo ci gën a sori. waaw anyway affaire bu bu xewee kon. ak liñ ci wax yëpp ne euh, euh, waa Italie ni ñu doon waajee loolu mu nekkoon event boo xam ne ñu ngi ci doon expect ne mun na am lu bëri loo xam ne tamit daf koy yokk ci làmbi Gambia. waaw anyway affaire bu mu xewee kon waxoon naa la man mbiri làmba ak yëpp ñu jógee nañu si toosee si guddi si leen si leen ñëw bu ñu leen lu dul affaire làmba mu moom xewee bu mu xewee. Euh, kon ñoo xam ne ñu si biir réew moom jarul ñu kool ñoom ñëpp seen mën a jaay nu fa woon xam neen lu xew xam ne am na mbir yu bëri suñu kondola dina leen ah waxal ak sa sa sa sa manager commencé sama ja leen si waxaaleel euh, lu problème musu nekk manager moo si war a wax force moo si mën a wax lu leer ñu mënu wax wax lu leer na si ñoom la takk tàmbe waaye comme moom anyway moom euh, dégg la moom bu moo bu moo jugee fi lu bëri ko laa mu structure mu am ni lu bari am am am ko woon affaire mu xew ma toog naa bis kon semaine bi mu passé wax waxoon jumaa bi tamit waxul waaw ma message di ma euh, di ma gën a ñaax di ma wax kon si lu lu mu nekk si projet bu mu nekk di kon daal ma daal affaire yu xew moom xam xam si daw lu xew mu ngi waxee kii xamul lu xew si ko ne ma ne ko please doo ma ma seen ko message ne ko booy mu fi nekk nag talu ma affaire yi làmba wax dëgg yàlla su ma dëji laa tal te su ma dombaay du génn aadama ma nekk fa di wax ay waxi làmba ñi si man sax loolu nekku nekku nekku respect ndax mbiri dombaay dafa dafa sànq ma ne ko doo ko sama ne ja please moom dina la am am am Raynaaw pour làmb ji toll Raynaaw affaire yi lu ñu ko doon yaakaaree lu bëri ceeñ ña moom sax ay ceeñ déet ay yeneen la doon foog sax ay yeneen yeneen sax ma ne ko loolu la moom dina la expliqué lu la wax rek loolu la loolu la. suba la xëy kool ma waaw ma ne moom wax naa ko manager waaw lu lu ko wax euh, commencé moom anyway euh, euh, am na yoo xam ne ko doon wax si télé waaye anyway wax wax na daal lam faal ba nga fiil ne kii. Euh, muy loolu am na lu si li nekk si moom lam lam faal euh, loo loo waaw waaw waaw waaw waaw. waaw élevé wax dama wax si loo xam ne. Hmm. moom si la IPM bi dem na ba cancer ko. Hmm. dis respect mun a am moom si club bu mu nekk xam nga tubaab bi ak fii du benn tubaab soo ne club soo ne rasa seen club club bi moo la moom jëla fay salaire every month jëla fay salaire léegi club bi combat boo am yow doo xam sa combat bi naka la nga xëy na la dana mën nga ko bàyyi doo xam lu ne fay doo xam dara. yëpp si kolo bi la moo dem waaw kolo bi nag muy tekki yaa sa everything ne mu ne ma waaw waaw exactly waaw kolo bi li mu ne ma dafa give up ñaari fight na only twenty eight am na fight mu give up ko ngir làmba ji mu ne before only twenty eight bi sax kon si fan yi fan yi rek am na fight bu mu waroon am boobu cekk la ko def euh, dafa war génn Italie boo tamit si la ko give up bi ko sof combat bi nag dafa jox cër combat bi trop ba pare bu combat bi dafa duggante diggante dëkk dëkka dëkka dëkka ak dëkka naka comme mbiri Italie ak ak Gambia rayna moom government Italie bi no ko te in charge rayna hôtel bu moo stay fii ak ak ak mu moto bu moo use fii sax yëpp government Italie bi noo ko amee te gars fay nañ ko already des mille for spend gars yi gars yi fay nañ ko fay nañ ko everything waroon ànd ak ñaari journaliste lu ma wax ñaari journaliste ñoom bëgg na seen ticket already government Italie bi yónnee leen représentative ak ñoomee làmb foofu Italie kon seen racine fédération bi foofu noonu bu Italie ñoom tamit yooyu ni moo représenté ak moom waa club bi ñu mu waroon àndal kon da da woon naka délégation bu bu xala bu xalataku ñoo ñu fi na bëri ñu bëri kon laa mi gaa mi mbiri moom euh, tubaab lu mu xamul rek daf ko def ko jaaxal waaw te mu ne gars yi dañ bëgg a xam ñu fi te bu leen am ay collaboration yu bëri euh, si diggante Gambia ak Italie yooyu noonu man loolu bu waxee loolu la faal yooyu lu ñaaw bu ma xoolee suba am am am na lu lu ma lu ma la wax waa si saa moom soo mayee dafa dafa dafa ceeñ su ne ko ñun ñun ñu rek la su ne kon mbër yu ngi ko seexal fii ñoom ñoom rek lañ ko seexaloo amul problème mun nañ dem toog ne suñu xaalis mu si ñoom already waaw suñ neexee nu bàyyi leen ko su mu mënu ne ko bàyyi tamit ñu toog toog ñu ñu ñu toog waaw ak ak ak gars yi euh, accompagné bu ñu ko accompagné nii euh, ñëpp doon wàcc on the seven ñu war a jóge Italie ñëw fii euh, pour event bi ñu toog ñu ne event boobu cancel nañ ko comme impact bi mën a def ci ñoom ci moom exactly dëgg la ci ko joxoon te jox biir wax mu man tey cër mu am ay eh, eh, kilos bi étalé yëpp. midiwit waaw ay combat yu ca ñu tubaab xamul loolu tubaab xam wax li mun tubaab si calendrier la ñu liggéey mun na kolom bi tegal na ko calendrier te moom mu ngi wax ne saison bi at bi dafaa bëri fight ndax champion si bu ne defoon Italie moo win étikilo bi étikilo Italie yëpp moo fa nekk champion kon képp suñu ba xeexee benn dëkk su dee étikilo te étikilo dafa nekkat euh, naka catégorie boo xam ne ñoo dee gën a am fight ndax moo mooy mooy midil mi n wéet nu ko jëm wax ne mas affaire yi mënuñ ko pousse nga xool ba monte moo laa arrangé mu ma asan unituntinae bi suma suma suma rawee gomba nag dinaa mën a ñoo sa biir biir Gambia waaw mu nowe ba amul fay dem jàmm ne am fa compétition mhm. programme moo war teewal Italie la moo teewal boobu loolu ak ay Canada ak fu nekk la ma li ma ne mu fa war a mu fa war a am am fayet mu ne loolu sax du problème waaye mooy ne euh, combat bi tey nu euh, war koo cancel Euh, loolu moom arrangé ko benn yoon loolu bu mu déggee loolu nag ñu nag suñu mentalité am cee ñëw ko ñu dañ toogoon dañ toogoon ñu affaire yi waxuñu si woon soo waxee bu amee ba léegi dégguloo si kenn ku génn wax na tamit manager yi xeex seen xeex am na am xeex tamit seen seen seen raay pour seen nekkin waaw waaw si la fii ñu la xam ne waaw lii euh, euh, ñun man wala bi mbiri bëre Gambia fii maa ko si dugal long time am na léegi three years bu waa am na léegi three years maa maa maa ko doon génne maa ko maa ko maa ko doon def ne anyway comme man am na boo xam ne financé baax mu waxee loolu man na ko ñu anyway jàkkaarloo bi moom góoma dina amal waaye bi ko soppi yow di leen jéem a négocier na on est 29 am nañ am am nañ time am nañ time pour jéem a négocier te bëgguma négocier ak fois na tey fii euh, te man manager boo fi kool naa ko hello boy ñu ne nii dafaa jàpp ne ah kii xaasam la dugal parce que intéressant moo tax mu kool ma soo kool na association bi kii xaasam la moo dugal personal interest moo tax te ñun personal interest teguñu si làmb ji tegu teguñu si làmb ji laa ji làmb ji dem su dee lu suñu suñu dugal làmb ji la gënal foofu noonu làmb ji moo mënu ëpp ñëpp mu ëppam ëpp dafa aji mu ëpp everything waaye kon bi ko sof Mama Lamine moo tax ñun euh, fii laa ko waxee fii sax affaire mu xewee si sax laa ko ñu ngi suñu conseil bi ne leen booy situation bi nii la maanaam li ma wax nii nii ma ko booy nañ fexe unité nekk su dee dafa làmba bi taw jàkka jàkkaaroo sax amul problème su dee dafa làmba du si am dara waaye ga étal yi suñu gis ne maanaam bëri na ñibbi war na su su su am dara sax loolu lu ñu amul amul problème su dee am am am nañ si dara moo leen doon séntu na xaalis moo tax xaalis moo tax nit du tega làmba ji su dee amoon si dara tamit bu ñu yaxal koo xamante liggéey na ba àgg yenn yenn level yi te la cëram mun na ko ñàkk te tubaab su xasee ba gën a cër mun a jox ke mënut la joxaat cër ko mama dafa ba tur ba ba tur waaw loolu moo seen te loolu teel a ko suba si ko ma consommé gis ma yónnee jóori message loo xam ne comme kon jamono ji suñ fi jugee fi ñun tamit dinañ tray bàyyi all miss na làmba Euh, euh, euh, mu am waaw dina am fi nekk ne jàkkaarloo moom xalaat xalaatuñ ko su kay jubóo sax ne sambi am na sax góob na dina fi def jàkkaarloo waaye li on tuuti bi mu xàppoon su la gaa jëloon waxtaan on tuuti et jubóo tuuti et ñu seen combat yi bëri on loolu amul si amul si problème nañ ko bëri nu seen ñu seen contrat ñëpp ñu bëri si affaire yi mu mu si jamono si loolu loolu leen tool man waaw man man tey moo doon kool su dee ma wax ma kool kool kool kool boor. su ma communication su ma communication neneen la doon nekk na foog naa brief brief brief brief naa la leneen la nekk kon lii moo juddu si si diggante bi waaw nañ traité si suñ doom yi suñ suñ doom yi rek si benn boor di si ñaax nag si jiite nag mën a jay suñ jógee fii nag jineen koo ñu war ko la faar ma moom yàlla def na ne si kenn ma faar du ma romb kenn sëgg du ma romb kenn kenn du ma romb te doomu nuyu waaw ñëpp am nañ jàmm ak salaam su ko see ñun euh, tey bi su ma amee suma problème di ko xee nga ko ma ne ma booy bàyyi li ngay xeex ah booy dinaa wax ne sama problème naan lu may fil na yow yaa ngi koo fil moo tax affaire bi bu mu xappati man man de bëlewu ma kenn bëlewu ma manager su dee bëlewu am na sax reste assubilay bëlew na ñun ñoom ñoo ñoom ñoo jag jagatu la su ko jagatuwul waaw ah, kon euh, promoteur yëpp ñu ngi leen di euh, wax ne di leen gën a ñaax rek pour ñu dalal seen xel. Euh, ndax situation bi dafa metti nga jël am na ñoo xamante ni right now ay promoteur lañ ay hundred of thousand jël nañ ko def ko ci mbër yi te season bi la ñu yaakaar pour loolu mu mën a mu mën a meññi nekk loo xam ne daf leen di jural njariñ euh, mun nañu wax ne right now nii promoteurs yi lu toll ci euh, fukki promoteur fukki promoteur jox nañ mbër yi ay prix contrat te boo xoolee mbër yi ñu jox prix contract tey boo ko doon compter. waaw almost hundred mbër yoo xamante ni jël nañu contract te dégg nga ni ñu jëlee contract si woowuñ mbër promoteur bi woowul mbër rek jox ko xaalisam manager bi daf ciy involve mu nekk lu leer lu wóor luy tax ñu jël xaalis ci promoteur bi euh, promoteur nag business kat la business kat nag alalam moom mu yàgg fenn fii di fa nelaw loolu féebawu ko parce que business kat dafay jël dugal génne jël dugal génne kon muy côté Gambia Rasulin Association parce que nag euh, mbir mi mun nañu wax ne egsiwul ci yéen wante ba tey seen njaboot lañ la promoteur yi jëflanteel di managers association muy club manager yi ngeen xam ne bu fekkente ni yow da nga nekk ci da nga nekk manager te yow jëlloo benn prix contract tamit am na say naataango manager yoo xam ne jël nañu ay prix contract ci promoteur yi loolu tamit ngeen sóoraale ko ñu bàyyi ci xel parce que euh, jamono bi ñuy waxee ak yéen euh, promoteur yu baree baree baree bari jaaxle nañu te li tax ñu jaaxle mooy ay business kat lañ te dañu jël seen alal ñu invest ko ci làmb ji te ci ñan lañ ko invest mooy ci athlète si kon dafa am solo pour ñu bàyyi leen xel Mouhamed ñu ngi jégalu dabul aar ji samedi ñoo waroon a def euh, jàkkaarloo bi yaa ngi gis dégg nga Assane ci kàddu yi ni mu ko waxee ak ginnaaw bi nga xamante ni li xew xew na AGM bi waroon a am mujjuta antu euh, jamono ji promoteur yi ci bare bari ñu ngi togg ak jaaxle parce que seen alal la ñuy dugaloon te bis yu baree bari fi mu nekk ni boo moytuwul nañ ko puusati. waaw Fall <coughs> am na solo trop wax dëgg yàlla man sama yaram dafa daw sax dëgg dëgg sama yaram dafa daw te mbir bi ñëpp ko séq làmb ji nekkul mën a jëy kese ñoo ko séq wala ak promoteur kese ñoo ko séq làmb ñu ko gofaan ñëpp dañ bëri trop ñu ngi nekk xam ñi nga xam xamal dañ nekk si biir làmb da nga xam amateur bi sax moo gën a sonn comme amateur bi no promoteur xaalisam di kalkin amateur yi moom mu ngi sonn sonnaay boo xam ne moom na gis làmb ju am rek fu mu dem si nekk nii tey dañoo waaw am ñoo romb sax ñu naan la samedi moom du yomb samedi moom du yomb xam nga tey affaire yi ñëw demee nii xam nga man daal comme lu li nga wax léegi rek manager yu si bëri si club si léegi bu nekkee forty seven club mun ngaa wax ne benn club rek moo jotut prix contract sooy compter mën ngaa continuer benn club rek mën a wax ne man benn club laa mën a continuer man gisuma ñu am prix contrat mooy club Yanda mbay ñoom rek laa mun a continuer gisuma ñoom ñu sign ñu joxe benn mbër si prix contrat gisuma ko waaye daal na gars yi waxtaan daal Mama Lamine li ko nar a daal itam nar na miti trop te surtout nit koo xamante ni itam nga. waxew nag xam nga si dëkk boo xamante ni itam wa ay tubaab bi itam lu ñu gëm rek mooy contrat lañ gëm. te xam nga dem ba dagg tigetam xam nga gars yi taxaw ko si lu bëri mu ñëwaat ñëwaat war a cancel loolu tam dina ko yàqal lu bari te dina tax tam comme ëllëg su waree amaat comme bis bu mel nii du tax gars yi farataal ko duñ ko gëm mhm. ndax dañ naan defoon na fi lu mel nii dafa mujjee cancel affaire yi mhm. mun daal na gars yi waxtaan daal seen biir ndax tey fédération bu ñu doon jël làmb jaar naa Sophie Cissine lañ ko jëlee woon su ma jumut dañ ko jëloon lu pare Sophie Cissine bi waaw. ñoom ñu toog sauver système bi. ok. mën naa si si gars yi yi nañu waxtaan seen biir ñu xool naka la ñoo defee yi affaire yi xam nga bi itam nañu waxtaan seen biir xam ne affaire yi du faytante du jaay maa la gën a am fulla du jaay maa la gën a am fayda nañ sóoraale lu ñu nekk seen gannaaw bu doon promoteur du woo seen xaalis kese am na ñoo xamante ni làmb rek maaj mu ngi am ci fruit des si Serekunda West ak Serekunda East ak Mandiaye Pack seen tànk dafa mos a dëgg amuñ fa soxla. Mm-hmm. làmp rek moo leen mën a li nga dem ku laa war a dagg tigir tati dala si doo dem làmp bu am war a dem dagg si tigir si soxna dala si dem toog seetaan ko kon am na ñoo xamante nii tey su làmp bu toogee rek ñu ne làmp waroon na am amut am ñoo xamante am na lu muy def si ñoom jaay ko gerte caaf bi jaay ko tu ice bi jaay ko tu café bi promoteur bi dugal xaalisam amateur bi fans yi ñëpp ñëpp ñu ngi toog di xaar pour làmb ubbi dama ñaan ngir yàlla rek képp ku nekk moom mën a jëbi lu mu jàppoon si xolam na ko bàyyi fédération bi lu mu jàppoon si xolam na ko bàyyi ñu jéemoo tasee ñu waxtaan ñu xool affaire naka la moo demee Assane tam même AGM bu amee waxtaan mënul ñàkk am ñuy ubbi làmb ji fi mu nii AGM moo war a am kañ lañ war a jàpp AGM bi pour mu am ci lañ war a waxtaan ko nañ ko jàpp te mu bañ a te mu wax na wax bu ma marketing ba léegi ndax tey boo naree def combat te defaloo jàkkaarloo lu risque la te risque mag la si promoteur bi ñoom ñu dara na ba nar enu comme seen combat ñëw ñu def combat bi combat am te te te naka laate amul loolu tax ñoom risque lañ jël bu baax risque la te ñoom lu ñu nangu loon ba wàcc seen bopp war a def seen combat bi pour te face to face amul manager yi war nañoo mën a wàcc noonu seen xol yi ak seen pour jëfal seen xol yi pour wàcc pour dimbale booy yi ndax booy yaakaar nañ leen ba dénkal seen bopp nañ wàcc dimbale booy yi fédération bi itam óolu bu leen ñëpp óolul teg leen ci place nañu sauver usine bi jàppale promoteur yi jàppale mbëri jàppale askanu làmb asan li ma ko laaj ba léegi rek mbaa face to face bi itam su ajoo nii mbaa gars yi maam la ni itam seen fekkee seen seen seen ticket comme si face to face bi la waroon ñëw mbaa duñu si am benn jafe-jafe ba léegi waaw anyway du sa du sa jafe-jafe xam nga jafe nekkul ko nekk ko suñu affaire yi Euh, euh, euh, su gaay su gaay su gaay ñëwee rek xam nga ñun ñooy stock face to face ñëw normalement mi waxoon dafa ñu stock foofu maanaam on dafa amoon dog-dog bu métti bu ko bu ko dal ñu ko lépp leen wax si moo tax mu cancel démb bi jël ko on the on the fourteen waaye four o'clock la waroon lancé naka si airport bi foo faa jóge si airport bi dem straight ñëw si face to face waaw da diggante waaw du xam si tuuti sax du ko daw diggante bi mu ñëw euh, face to face loolu moom loolu moo moom loolu loolu mën na ko plan ak gars yi yëpp loolu la gars yi plan kon plan boobu moom yaaxu na moom xam na ne sa yaaxu na ndax moom bu ma xee ma ko booyee ñu ne lii dañ ko dañ ko tëraloon dañ ko tëraloon lépp jàkkaarloo ba ma xalaatu xala xalaatuñ ko waaw jàkkaarloo ba ma xalaatuñ ko def. waaw nga baax lu mu faasaan lu mu faasaan lu ndaw rek comme Assane bu yàlla defalee ñaan am ba undi tuuti naan mën a nekk moom. Mhm. ba undi tuuti naan mën a nekk. Mhm. kon da ngaa gis ne euh, Mamadou Lamine. su ñëwee itam on dit fourteen. Mm-hmm. si la moo des ba bu dee kumbaay ba ñibbiwaat. Mm-hmm. kon nañ traay ba balaa on dit fourteen bu ñëw. Mm-hmm. yàlla na yàlla def xol yi ànd. nekk benn boo on dit tamit naan combat bi mën a am. waaw ñu nag dina si dina si doxaluñu on dit fourteen rek benn see silence waaye duñu si mën a silence aar silence dañ nekkoon ne ne because of dañ soo silence ne mber ma su eba keneen may xeex problème soo ko su mën a jàppale seetaan seetaan ko waaw bu mu bu mu su ma defal ko mbir mbiri personnel na mbañ ma doo fa kon mbiri demee demee la nii lam fal dinañ si jëm xool naka lañ si doxee ñu tamit ñu jëm si suñu institution kon kii bi ko waxee chaque chaque suñu ko xam nga tey làmba tëkkati làmba yu bëri xam-xam nañ ko jàkkaaroo jàkkaaroo mun naa ne daanako mooy sponsor naka event waaw na tey soo defee sa sa jàkkaaroo dafa am si yow mu jëm côté Mm-hmm. lu ndaw nga seetee yokk soo dee yokk soo dee bëri. moom moo leen amal sa rajo six yëpp. Mm-hmm. soo teg sa rajo nga génne sa relais génne génne nga loolu tamit waaye ñun tey ñun loolu ñun parce que ay gi fa bokk te ñun ñoo xam loolu ñoom affaire yi da doon toog euh, naka suñu sayt ba mbiri rek la ba rek la ba rek la su dee am nañ déet wasalaam su dee amul déet demoon sabat euh, dem jéem a xool afta weer ko na fi yow aluñu tuuti bi su la su la rawee rek soo dalee si fi ne jàpp ngay daal. Mm-hmm. waaw fii na fi jàppale déet ba ay février yëpp promoteur ñu ko jàppale. soo ne ten promoteur eleven event na ñaar event la am ah. event boo lee da si kaw nit ba lu ñoo xalaat afta weeru koor ñëw def ko def gis nga li li ñoo ne mu ko waaw. moom làmb ji bëgg nañ mu am incha allah ok wax ji leer na Euh, dañuy dañuy ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni euh, moom mooy xew moo xew moo xew li xew dabul aar ji soo gisee ñu indi leen tey ñoom ñoo nekkoon samedi bii di ñëw muy on the 14 moo waroon a nekk seen event mu nekkoon event bi nga xam ne moom moo waroon a ubbi làmbi Gambia hmm. waaye li nga xam ne loolu moo tax mënta am mooy wax nañ leen ko ne bala ñuy ubbi làmb ji AGM dafay am AGM nag annual general meeting la mooy stakeholders yi dañuy toog ak association bi ñu indil leen li nga xamante ni moom mooy liñ leen defal ci li nga xam ne weesu na ci season 2020 3 2024 2022 2023 2022 2023 ni ci liggéey Gambia Wrestling Association liñ ci achieve ñu ñëw ñu tegal ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy stakeholders si wan leen ne lii lañ leen achiefal lii mooy li nga xamante ni moom lañ bëggoon munta antu seen làmb ji lii moo ci dugg ci xaalis lii lañ ci génne lii moo ci des léegi nag loolu samedi bii ñu weesu nii waroon a yemoo ak on the 7 octobre samedi bii passé on the 7 ci la waroon a xew woote woon nañ ndaje bi foofu ca fi nga xamante ni moom mooy ci. Euh, euh, waaw. PIA yi lañ woote woon ci xool bi foofu la. Gambia Wrestling Association ak manager yi stakeholders si regional chairman si regional region si si seen exécutif yi ñu indi promoteur yi ñu ngi fa woon mbër yi roi des arènes king of the arena xoyantaan mu ngi fa woon lekket bu baara France boo limee ñooñu rek lim nga mbër yépp nañ ña ngi fa woon ak yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi fa woon club yi nag 47 club club yëpp ku ci nekk sa manager mu ngi fa woon seven regions moo am region yi nag am na ci regions si nga xamante ni gisuñu leen fa waaye am na regions si nga xamante ni gis nañ leen fa ñu mel ni BCC euh, West Coast ak KMC North Bank ah mun na nekk waaye bàyyiwuma ci xel ci mbooloo bi waaye ak lu mënti di xew fi nga xam ne foofu la programme bi mujjee mooy lii ñu leen bëgg a wan ngeen seetaan ko lii ngeen di gis ci screen bi lii la programme bi nii la programme bi mujjee ba ku ci nekk nga dem doxi say soxla yéen a gis nii muy Gambia Restaurant Association gis ngeen ci high table bi ci kaw ñu ngi noonu coow li bari woon na gis ngeen manager yi ñoo féete ci suuf gis ngeen président bu Gambia Racine Association noonu gis nga Alaaji Keba mu ngi noonu moom moo nekk secrétaire général bu eh, eh, managers association coow li bari na xëccoo bi xiiro bi ŋaayoo bi gis ngeen coow laa ngi noonu lii ngeen gis ni mooy li nga xam ne moo xewoon ci samedi bi weesu njabootu làmb bi ñu dajee nii lañ tàqalikoowee coow lañ tàqalikoowee coow lii lañ tàqalikoowee ba ku ci nekk dem dugg ci surq gis ngeen coow li gis nga fii ñi leen di wan nii fii la vote bi amoon ñu naan <coughs> naan yëkkati leen seen loxo pour ñu ànd ci mbir mi wàcc leen seen loxo yéen ñi nga xamante ni àndu leen ci mbir mi gis nga ñiy compter naan ñii ñoo wax ñu aj AGM bi ñi d'accord pour ñu aj AGM bi ñoo yëkkati seen loxo ñu yëkkati seen loxo nii yëpp ngeen di gis ñu yëkkati seen loxo dañ d'accord ci ne AGM bi moom du am tey ci samedi bi du am waaw gis ngeen ko boo xoolee maturité bi ñu ëpp dañoo yëkkati seen loxo pour AGM bi du am léegi nag baax na yaamu ndaw jërëjëf léegi dañuy ñëw ci li waral <coughs> li waral coow lii <coughs> ñu ngi jéggalu li waral lii amul AGM bi amul man dañu ne amuñu côté boo xam ne war nañ koo bileem wala côté boo xam ne waruñ la bileem wala ku ci nekk yaa ngi ci sa right man nag man damay bileem man damay bileem damay bileem 100 percent Gambia Rasulin Association bu ma ko mënoon a def thousand times ci bileem leen sax dama leen di bileem ci thousand times te ci leer. ci laa ko teg mooy bi ñuy dem xam nga Gambia li ñu war a bàyyi mooy bu coow jógee ñu ne dañuy dañuy dañuy volontaire kenn fayu ñu dañuy sacrifice kenn fayu ñu añ leen ñu waxante dëgg Gambia Wrestling eh, Association exécutif bi fa nekk yépp ku ci nekk dangay ngay volontaire waaye amul kenn ku ñu leelal suukar wala ñu leelal ah, xorom pour nga ñëw bokk ci volontaire bi bi ngeen jógee ñëw foos foo yées bi ñeenti atu njëkk yi gaa yi ñoo leen jël ñu fal leen falin boo xamante ni dañ am ci yéen yaakaar ñu jiital leen ngeen ñëw di doxal gars yi di apprécier li ngeen di doxal ànd ci ak yéen ngeen dawal foo yées ngeen dem congrès congrès bi lu baree baree baree xew na ci ci volontaires yi kese ginnaaw bi ngeen toogee foo yées ba pare ñu war a dem congrès pour second temps bi second temps boobu noonu lu nekk def ngeen ko pour jotaat pour mun a continuer seen mandat bi ci loo xam ne volontaire la lu nekk xew na ci dem nañ sax ba ci naan am na ay club yoo xam ne registre nañ leen registre nañ leen ci anam boo xamante ni sax matuñ exécutif pour ñu registre leen waaye dañ ko def pour bëgg ay vote bi mu weesoo Gambia Wrestling Association fii ba koy na dem ngeen ci région yépp dem campagne pour ñu fal leen ci volontaire yi ci amuleen ci dara da ngeen di volontaire yi waa léegi nag man li ma nanguwul mooy mbir boo ci nekkee di volontaire yi fayuñ la nga am jotam bëgg-bëgg moo la ci dugal nga dem ba amatoo jotam nga dem ba nga xam ne mënatuloo koo yóbbu danga war gore taxaw ak ñi la ko joxoon nga ni leen lii yéen a ma ko dénkoon waaye mënatuma koo yóbbu keroog ci seeni kàddu yéen ci samedi bii passé on the 7 octobre ci seeni kàddu yéen Gambia Rasulin Association yéen a toog jàkkaarloo ak stakeholders yi Assane Kebe wax na ko léegi ci ginnaaw ñun du ñu xuus parce que dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy dalil mooy li tax ñu ne AGM bi amul mooy report si constitution bi bu làmb mu ne stakeholder si dañu war a jot report si two weeks before AGM bi two weeks before AGM la ñu war a jot report si ok ci biir loolu ñu jot ko Thursday Friday Saturday mu war a nekk AGM bi muy three days yoo xam ne ci lañ ko jot loolu moo tax ñoom stakeholders si ñi ne duñ dem AGM ñoom stakeholders si foofu lañ ci clause boobu ci lañ noot Rasoline association bi ne leen ne duñ dem AGM ndax report si dañ koo yeex a jot executive bu Gambia Rasulin Association that very day ñoom liñ wax ñu ne loolu moo tax ngeen yéex a jot report si stakeholders si pour ñu yéex a jot report si mooy seen secretary bi mu ne dafa tukki woon Aziz seen bi mu ne dafa tukki woon ñoom ñaar sax kenn xamu ci moroomam kan moo njëkk a tukki ak kan moo mujjee tukki ci niñ doon waxee ñoom kon ñooñu amatuñu jotu làmb ci amuñ jot gi de wax dëgg yàlla Ibrahima Souare bi nekk secrétaire général bu Gambia Wrestling Association bi Gambien si ak stakeholders yépp di jël position bi di ko teg ci sa loxo boobu danga amoon jotu làmb ba àdduna bi yëpp mun nañ koo seede làmb lu nekk la la jaral waaye guddi ñu toll nii tembe ji GFF yaa ngi fay liggéey dañ la employé nga yore liggéeyu jàmbur dangay ngay xëy eight o'clock wàcc four o'clock kon amatuloo jot GFF bu la soxlawee làmb soxla la ci ji GFF ngay dem parce que ñoo lay fay salari làmb da ngay volontaire yi mënatuloo ko kon bul ko forse ñaata nit la ñu gis ci àdduna ñu yore mbir ba mënatuñ koo yor damay dégg resign resign am na nga resign waaye boo toppee sa bëgg-bëgg topp na gaa yi wóolu nañ ma bëgg nañ ma end of the day lii mu mel nii la lay indil ci jafe-jafe parce que ñi la ñi la ko dénkoon doon la ci puus ñeen doon juum yu bari ñu koy understand tey ñoo taxaw ne duñ leen understand because of ñun wax na Assane Kebe wax na ko léegi ñun gàmbiya mun nañu wax ne weakness nañ fi ay lu toll ci ay ten wala ay fukki sax AGM yoo xam ne seede nañ ko dem nañu si ay AGM amul benn AGM boo xam ne ñun weakness nañ ko lépp mu juge fa transparence am si am na report yu bari yoo xam ne bala ñu ko adopt coow li day bari ba nga xamante ni am na ci yoo xam ne dañ koy seede yoo xamante ni National Sport Council DEC Officer of Wrestling Alaaji Abdoulaye Bojang mooy jug taxaw wax wax ju rafet indi manager yi delloo si leen ñu ñëw ñu ànd ci adopt bi te li ñuy adopt wóor na ne lii am na lu ci nekk loo xamante ni leerut AGM bii passé bii passé bii passé nii final sa report amul benn koppar yoo xam ne dañ ko cee bind ñu ne dañu dañoo fàtte lan lañ ko def 25000. <coughs> maa ngi jégalu damaa ah, lañ ko ci fan la dugg. te terewul report boobu dañ ko adopté ñi ko adoptoon last year ñoo bañ tey ne dañ dañoo yéex a jot ñi bañ ah? yaa ngi ko fi wax léegi report yi nga xamante ni moo tax bërki démb ñu bañ dañ daan ñëw ba ci bis bi ci bunt bi ñu doog cee jot booba xanaa condition bi waxul ne two weeks nga ko war a jot moo tax am na loo xam ne dégg naa ko ci wax ci wax nag bu feebaree nopp ya koy déglu ñoo war a wér parce que Ibrahima Souare bi muy dinaay di bañ ne lii warul tax stakeholders si ñi taxaw ñu ne dañuy dañuy dañuy cancel full AGM wax na ba tudd ay personal issue waa ay personal issue moo ko koos am na manager yu bari yoo xam ne seen personal interest seen personal issue lu ñu leen bañal moo tax ñu mer bëgg a jël guerre bi dugal ko ci xeexe ko xeexe ko xeexe ko association bi ci lu leen association bi bañaloon nanguloon démb amaana ñu bañal leen ko tey wala ñu am luñ bëggoon association bi nangul leen ko nangulu leen ko ñu jël ci opportunité pour jaare fii pour xeex leen yooyu yëpp xew na ci waaye nag ñun yooyu yëpp duñ ci dugg liñ mën a wax askan bi mooy saturday bii passé on the 7 octobre moo waroon a am AGM bi nga xam ne moo war a tax season bi ubbi on the 7 octobre bi bañ fa ba làmb dajaloo Gambia Wrestling Association ñu toog stakeholder si ñu toog dañ wax ne AGM bi duñ ko mën a def because of constitution bi dafa wax ne danga war a jot report si two weeks before ñoom Rasoulin association bi ñu jug ñu ne président bi ci boppam jug na ñu ne ñoom dañoo juum ñu ngi leen koy jéggalu baal leen ñu àq dañoo juum stakeholder si ñu ne leen ne ñun dañuy juum ngeen dog suñu mbari seen xaalis dañuy juum ngeen teg ñu ay daan du ngeen ñu baal kon ñun juumte bi mënul leen koo baal ku nekk dem doxi ay soxlaam léegi nag li ñuy wax mooy nan la ñuy defaree ba promoteur yi jot a dugal seen alal bis yi nga xamante ni jot nañ koo jàpp bis yooyu ay event am ci am na benn bu war a kansel muy samedi on the 21st baneen war naa am manager yi segam am ngeen seen fulla ak seen fayda ba ne report si da ngeen cee war a jot two weeks before toos dee ngeen ko jot calculer leen toos dee ngeen ko jot ngeen calculer two weeks ngeen fexe two weeks yi bu jeexee fekk pare ngeen AGM dafa war a amaat very soon AGM dafa war a amaat very soon Gambia Wrestling Association yéen tamit da ngeen ci am responsibility two weeks la gaayu la la la la la stakeholder si war a amee report si toos de ngeen leen ko jox calculer leen two weeks two weeks yi fi mu fi mu war a mate man dama jàpp ne date vérité bi ngeen bi bala ñu doon génn foofu noonu waroon nañoo wax ne bis ak nañ ko ba bis sàngam ñu calculer ci two weeks yi ngeen di ame report si ñi xam kañ lay tombeel ñu jàpp ko ci bis boobu warul leen woon a tasaaroo te tënku leen ñu ngi jéggalu dañoo sot <clears throat> warul leen woon a tasaaroo te jàpp leen AGM bi kañ la war a doon AGM bi dafa war a am very soon bu loolu lépp bu ngeen mënta régler nag seen problème National Sport Council dañu war a interfere ci mbir mi làmb dafa wutee ak yeneen sports yi làmb doo ko compare ak basket doo ko compare ak handball doo ko compare ak karaté làmb business la te ay mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk mbër yooyu làmb la ñu yaakaar ay athletes lañ te all the time da di wax ne athletes yi dañ leen a war a sóoraale athletes dañ leen a war a sóoraale dañ leen a war a protect tey am na ci mbër yoo xamante ni lii xew nii neexu leen waaye sañu ñoo bañ a ànd ci mbir mi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jiite ñoom ñoo ànd ci dogal bi waaye mbër yu bari neexu leen mbër yi comme li ma leen wax rek dañoo bëgg bëre buñ sañoon AGM bi dañ koy patam patamee noonu waaye bëgg lu leer segam bëgg leer ak bëgg lu yóbbu làmbi Gambie ci kanam la ak bëgg lu transparence la two weeks ngeen war a tee report ci biir jamono bi war ngeen a mën a waxtaan yéen Rasulin association bi ak manager yi parce que yéen yi liggéey yéen yéen a affiliate manager yi ñu ne ñoo leen fa teg yéen association bi waaye nag coow am na seen diggante am ngeen problème de te problème bi nag da ngeen koo war a régler ci seen biir am na ay kilifa yu nekk ci seen biir manager yi am na ay kilifa yu nekk ci seen biir Gambia Rasulin association bi waxtaan leen waxtaanu dëgg parce que reports yi ma gis nii manager yi niñ ko jëlee nii boo moytul caay yu bari dina ci naaw de parce que nag juumte mën na cee bari de ndax ñi defal ñi bind report si ndax concentration bi ak time bi may na leen ko bañ war koo mun a doxalee bindee bindin bu transparent yoo xamante ni <coughs> jafe-jafe du am am na fi ay AGM yu bari yoo xamante ni am na fi ay AGM yu bari yoo xamante ni munta dem ba weesu te problème du am ci ay ay reports yi ay financial report yenn saa yi nga des ñu def AGM ba pare benn promoteur mu ne man gisuma sama tur te man dog naa Lansing dog dog naa Lansing si ya te man gisuma suma tur ci reports yu bari da ko ciy faral di dégg te boobu ngeen gën a am concentration yéen Gambia National Association jamono boobu ngeen gën a taxaw temb pour sàmm làmb ji rawatina nag jamono ji nga xamante ni da ngeen a ñàkk jot tukki yi bari na te gars yi nag jamono jii lañ bëgg lépp leer moo tax ma ne la ni il faut ku nekk français na koy waxe xaw ma sot ah. wasalaam. lan ngay tàggatoo doom lay waaw en di la pour mieux sauter. pour ah. parce que manager yi da manager yi dinañ ko jàng de ku jàngul di ko jàngul ji waaw. waaw waaw Lampal di la di la sant. waaw waaw waaw. xanaa li nekk ci event ba pare ay xale ngeen ay ndaw ngeen ñii ngeen tëggal làmb magantewu leen ak ñoom lu bari ngeen jël seen alal def ko ci ñoom doon yaakaar dundee xel dal samedi lii ñëw xew. ñu ngi leen di mastawu ci loolu ay ca. waaw loolu man. Eh, tamit eh, eh, manager ñu suñ suñ intéresse ñaanuma. du hmm. ko suñ suñ intéresse. nga war a ñëw jóg. waaw ñaanuma. ñun ñun ñun loolu. waaw loolu moo tax liggéey bi ngeen jàpp ma ne jàpp su dee lu noo fayet ndax loo wax fii man keroog ne ko ma fa woon wax dëgg yàlla xam naa lu ay ijéem ma fa waaw loolu fi wax dafa nekk ndax su waxi aftal da ci ay personnel problème personnel personnel personnel waaw waaw waaw exalé waaw su dee mu ne moom li mu gis affaire yi dafa am ñoo xam ne dañ am seen personal problème bu ko xeexee ci problème bi waaw. su dee su dee ay personal problème waaw noonu la demee noonu la. su dee loolu la. loolu la. ne si xalaat ñun. dëgg la dugal suñu xaalis ba ba pare. billaahi xaalis neex na si xalaat ci ndaw yi nga xam ne. waaw waaw ak tamit ndaw yoo xam ne ñoom xam ne su ma problème bu ma faa mu mel ni man maa yor seen association bi. billaahi bébé xale du ma ko dugal mu ngi nii di ma sëñ bi rek. mu ne ko waaye yow du la naka yow benn mbër nga. dëgg la benn mbër nga da nga dem liggéey Dakar dëgg la. pour di waat sa jàkkaarloo. donc ñi ñuy ñi ñuy contrat fukki fukki naka fukki mbër ak ak juróom-ñett. dëgg la ñu am problème. Mm-hmm. sa déet passé bu su déet. moo ko gën a jege. mu ngi nii war a paas appel mm-hmm. ab appel mm-hmm. euh, euh, euh, si manager association bi mm-hmm. waaw nu nu mu teel appel bi nag waaw ñu ñu waaw waaw ñu suñu appel dafa am fu suñu ñaan bi dafa mun ñaan xam nga lu xew ñaan am ñaan weesu na ci dagul aar ji non non xam nga ñaan weesu xaaral rek xam nga la ñaan weesu Assane gis nga am mbir mi dafa egg foo xamante ni làmb ji amul raay raayal amul négocier two weeks. non non waru ko passé. te waxuñu lu leer. Bamba daal ba fu ma ñaanee. waaw dafa ñaanuma ngir de. dafa ñaan ngir su ma su ma mbir yi. waaw mbir yi lu ñu war a lijjanti kon noo ko waxee. nañ ko teel a lijjanti waaw nañ ko teel a lijjanti lam fa la fa tu masa tu masa two weeks bëri na lam fa. waaw waaw waaw waaw. waaw waru passé two weeks. waaw exactement kon lu. waaw. ñu ngi ñaan tamit association bi ñoom tamit noonu jaboote affaire bari ñu ñu dugg suñu xaalis ñoom ñoo ñu jaboote su si dalasi pour mo moo do ko lase kenn doo ko lase manager manager manager naka mbër ak ñoom muy lu waa promoteur lu kenn doo ko ko promoteur lu loo dugal ko la formal kon tamit neen conseil ñu ngay teel otante ñu xool fan la bi nekkee ñu jëm ko soob ñu lamb dem rek mooy suñu priorité lamb bi waaw mm-hmm. war koo paase te woote waatuñ AGM parce que lay dépassé ci AGM bi xaalisu làmb la ñoo ko moom làmb jee ko moom nekkul ne kenn ci ñoom yaay jël sax xaalis sa poos pour pour organise ko on saana problème am na mooy dañ ko war a jot two weeks jot nañ ko toos de nañ ko calculer two weeks yi kat ñu woote AGM bi mu jeex làmb ji continuer mooy yoon Mouhamed lan ngay tàggatoo waaw di wax Assane rek comme maanaam around near Rabat. Hussein on the 29 ñu mun ko sauver daal. incha allah on the 29 tout Thursday euh, Thursday bi passé. boo ko calculé wee calculé wee. on daal bu yàlla defee ah. yi nga xamante ni. mooy nekk two weeks yi. waaw ndax poche bi waaw hmm. on the fortune on two weeks yi ci lay mat. Hmm. ci lay mat fifteen ñu woote AGM bi mu jeex. parce que benn problème lañ ci gis ñu ne moo tax. ñu bañ a def AGM bi mooy dañ yi léet a jot final sa report si dañ yée yéex a jot secretary report bi dañ yéex a jot administration report si two weeks waru ko passé ñu ñëw ñu indil ñu li nga xamante ni moom mooy AGM bi AGM bi passé lamb ji continué wasalaam. on the 12 moo nekk two weeks yi on the 12 moo waaw on ñu def AGM champion sound maa ngi koy nuyu Lamine Thiam gaynde gi maa ngi lay ziar ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan à la promotion promoteurs yi wax dëgg yàlla ñi nga xam te ni def nañ ci seen xaalis ñoom ñëpp ñu ngi leen di eh, wax ne ñu dalal seen xel yi xam ne làmb dina am bisi dina jàll ci kàttanu yàlla yaa mu ndaw Diop. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mba Diop ak Mbacke Diop jàmbaar la waaw jay na ba macha allah euh, ñoom dañuy bëgg mbir mi muy jàll ñi nekkoon ci Facebook bi ñëpp wasalaam yàlla na yàlla defal ñu jàmm euh, bye bye ñoo ngi dem ba suba